RTS 1 triangle sud de Dakar waxtu wi jot na bisimila ci xibaar ci wolof président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye di tëj euh, tukkeem foofu ca Chine ginnaaw bi mu demee ci ndaw moom président de la république daje ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor province boobule Bassirou Diomaye Faye wax na ni daal rafetlu na bu baax a baax investissement yi am foofu te sopp na leen lool ngir indi leen fii ci réewu Sénégal xibaar yi dina wax ci tukki bi nga xam ne premier ministre ñu ko doon mal ca Matam dem seeti nag kilifa diine yi di Thierno Samba Sarr ak Thierno Aliou Thiam foofu ca Matam ginnaaw loolu it moom premier ministre dem na ca tefesub maatam ga ngir seeti nag jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñuy wax moo am di faral di am foofu ca maatam nawet bu jot ginnaaw bi nga xamee ni ndox ma da yéeg ca dex ga ca maatam

gaynde yi Sénégal yegg nañu ca Malawi xam ngeen naka ci altine deuxième journée éliminatoire CAN Maroc 2025 Sénégal dafa war a daje ak bour ñu ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte ànd ak yéen ci télévision nationale ñi ngi am mbégte it xam ne yéen ñi topp ci réew mi Sénégal Top ñu fépp ci àddina rawatina it fële ca Chine président de la République di fa tëj tukkeem bu mag bi nga xam ne boobu léegi ay fan mi ngi ko doon amal ginnaaw forum bu mag boobu di forum Chine Afrique moom jiitu réew mi ma nga woon ci Qingdao foofu la ñuy dem fekki suñuy ndaw Aboubacry Kane Ousseynou Ndoye ak El Hadj Malick ginnaaw capitale politique bu province Shandong njiitu réew mi président Bassirou Diomaye fay ñëw tey fii ci daaw di capital économique ba ngir visiter port bu mucc ayib bi ñuy coow ci àddina bi yëpp ba mu yegsee bay kilifay port bi dalal ko ñu daal di wanaleeg moom liggéey bi nga xam ni moo tax ba port bi nekk tey ñeenteelu poor bi gën a màgg ci àddina gi mu bokk ci lii màndargal jaar-jaar googu nag jumtuwaay xarala yu mucc ayib li ko waral nag mooy port Ndakaaru daa xaatim déggoo digganteem ak port bu Qingdao mbébét bi doon jëflanti buy am njeexital ci liggéey bi nga xam ni moom la nguur gi di xaar ci moom nde fi am nag day màndargal dégg-dégg yokkute ñeel bépp activité bu ñuy amal ci port. li ñu gis fii nag dafay wone ne xarañteefu technologie eh, ci fishing toll te mu tax ñu war a gën a bàyyi xel coopération bu ñu am ak Chine te gannaaw érigé nañ ko au rang de stratégique global. ci fànn yëpp que mu nekk ci mbéy mu ñu gis démb wala ci li ñu gis nii tey ci port maritime fiñ ci mën a jëm ak waa waa Chine euh, gis nañu fi port boo xamante ne daanaka lépp dañ ko automatiser te lépp tamit ci buñ koy tëgg dañ koy dañ ci xalaate économie de d'échelle rawatina ci wàllu énergie ci booy dox naka ngay contribuer ci andi courant ci vitrine yi ñu def naka lañuy utiliser naaj mu war a doon royukaay ci jéego yi nga xam ni port de Ndakaaru namm na ko amal ngir tegu ci yoon ñeel modernisation ak efficacité. lii nga xamante ne ci Qingdao signé na ko pooru Dakar partenariat la boo xamante ne war nañ ko suqat ci nu mu gën a gaawee mu doon loo xamante ne nag war nañu dox jëm ci lu mel nii euh, ak pooru Dakar ak yeneen poor yi nga xamante ne moom lañ nekk di di tabax tamit ci ci ci réew mi. donc euh, expérience la boo xamante ne mën na andi performance bu jéggi dayoo ci poor yi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi Sénégal di développé wu. jëflante diggante port daaw ak bu Ndakaaru war bokk nag ci liy gën a dëgëral coopération Sénégal Chine rawatina province bi di Shandong ubbil ay buntam suñu réew ci wàllu yu bëri. di fàttali rek foofu ci Chine euh, suñu première dame it na ak yeneen i première dame yi nekkoon foofu waxtaan nañu lu bare bare ci relation yi nga xam ne Sénégal seq na ko ak réew yooyu rawatina it ci wàllu euh, koom ak taxawaayuk Sénégal ca bitim réew. di dellu si fii ci réew mi ak euh, bëccëg bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon démb journée set setal sunub réew ca Matam la woon mel ni waa maatam ak Ourossogui yëpp génnoon nañu ngir ànd ci ak premier ministre Ousmane Sonko. Aram Pour Ourossogui ak Matam mobilisation pour Taku lañ def ci bésub setal sunu réew li naaj bi tang tàng-tàng ñu nettoyer ni leen premier ministre Ousmane Sonko Don ci xaaree li ñu fi andi woon nag am ci lu kawe suñu njort parce que wax naa ni yéen waa Matam Yena a le premier prix ci journée set setal ndax vous avez fait une mobilisation exceptionnelle kon maa ngi satisfaction président Diomaye ak sama satisfaction man en tant que chef du gouvernement. Ourossogui Gui, mon gare routière le wër rendez-vous bi fees d'El, ñu nettoyé ba noppi jóge fa Matam mu daal di rawati. premier ministre profito ci bésëb seetal sunu réew ngir indil leen xibaar bu neex. mooy phosphate bii nga xam ne am na Matam ñu ne ci phosphate yi gën qualité ci monde bi la juróomi réew ñoo am phosphate bu am qualité boobu ci àdduna ba mu dañ ci li experts yi wax ñu ne am nañ ci quantité boo xam ne macha allah moo ëpp sax la nga xam ne ICS mu ngi koy exploité à Mboro de 1960 wala de 1900 des années 60 ba tey jii kon capacité bu rëy la waaye ñu gis ni ci nañ ko bëgg a exploité option bi gouvernement bi jëloon wala yi gouvernement yi jëloon boobu ba léegi option boobu baaxul ndax Sénégal bokk na ci li ko gën a gàllankoor mooy lu ñu am ci ressource naturelle rek dañ koy jaay nit ñi ñëw jël ko yóbbu ko dem transformer ko feneen lépp dañuy ñoom dañuy ñëw rek jël yóbbu Sénégal lam ci am doon lu tuuti lu néew ñu ne loolu il faut mu jeex moo tax phosphate bii bonne nouvelle bi ma bëgg a wax waa Fuuta waa Matam mooy bu soobee yàlla la ñu bëgg a def mooy fii lañ koy extraire waaye fii lañ koy transformer ndax phosphate rek mun na développer réew phosphate rek. leneen nag premier ministre bëggoon na ko fee wax muy kàddu yi nga xam ne jeunesse bi la ko jagleel. seen place fii la Sénégal seen place du dugg ci ay gaal di xaru ci géej gi foofu ngeen bëgg a dem. yéen a ngi suivre actualité amul bis bu bu yàlla sàkk te seeni kilifa ñoom duñu ñëw fii président recevoir leen wala ma recevoir leen ñu wax ni ñoom dañoo bëgg a ñëw liggéey Sénégal parce que ñoom xam nañu potentiel bi fi ne kon ñun ñi moom Sénégal pourquoi ñuy bàyyi Sénégal di dem ñoom ñu war a ñëw ak seen i capitaux exploiter ni ñu daan exploiter dem seen yoon da ngeen di toog ci réew mi lu métti yàggul ku muñ ba am 25 ans war ngaa mën a muñaat tuuti suñu la nee muñal ngeen toog ñu liggéey réew mi. bésub setal sunu réew xumboon lool diggante Wuro Sogi ak Matam bale nañ setal nañ waaye waxtaan fii lu yaatoo yaatu premier ministre ñaax ñëpp ñu bañ a teggi seen tànk rawatina nag ci lubbi teg lekkool bi nga xam ne moom lañ dëgmal te di laaj tamit daal di takkuwaat gën a bale lekkool yi. phosphate boobule premier ministre wax ko legi, nga Matam lay euh, gene, jàpp na nag fofu muy génnee fa lañ ko wara a defaree fa ko wara a ngir nag euh, suqali ñi nga xam ne ñoom ñoo Matam Mon premier ministre jàpp na ni sax mën Akwa ci liggéey ak Maroc ñu déglu premier ministre Ousmane Sonko. phosphate rek mun na développer phosphate rek jamono ji may wax ministre de l'industrie Damo dama ko yebaloon ne ko dembal nga xool Maroc. gannaaw bi ma recevoiré fii le directeur de l'office euh, chérifien du phosphate Maroc amul pétrole amul gaz amul dara waaye Maroc de 2006 à maintenant bi mu fexee ba récupéré waat phosphate am phosphate boobu moo propulsé Maroc loolu nit ñi xamuñu ko ndax phosphate li nga ci mën a def bëri na bëriwaay boo xam ne mais li gën a gàtt rek mooy mbay phosphate moo koy dundal engrais bi nga ci mën a def mooy dundal mbay te bokku na ci lofal lu lofal mbay Sénégal moy amuñu engrais kon suñu récupéroon phosphate bi di produire 1 million d'engrais 1 million de tonnes d'engrais soxla ci 100000 ou 150000 la ca dess sax ñu exporter ko mu duggal xaalis bu bari ak devise lolu ban impact économique lay def ci Sénégal réew mu bëgg bopam non lay doxalee motax ñu né nak phosphate du Matam bi ay unité industrielle dañ ko taxawal fi ci Matam li leen wax ni na ngeen ñu jugé ci lañuy def bu leen ñu jugé ci li politiciens di wax de man maa leen ko wax fii te Matam laa ko waxee dinañ fi taxawal unité industrielle incha allah di transformer phosphate bi fii mu créer des emplois des milliers d' emplois à Matam waaye créer des milliers d' emplois à travers le Sénégal loolu ci suñuy option la bokk. laata muy jógee Matam premier ministre dem na seeti kilifa diine yi di Thierno Samassa ak Thierno Aliou Thiam mon premier ministre demna ci tefes ga seeti ndox moomu di di wacc té lélé léeg muy indi jafé jafé ci jamonoy nawet fofu ci bori Matam axam ndaw Thierno Samassa premier ministre Ousmane Sonko ñu saafonte fi lu yàgg-yàgg fàttaliku fi seeni waxtaan jamono boobu Ousmane Sonko mi ngi woon ci opposition bi jamono métti woon lool ci mom, premier ministre né, mi ngi fàttaliku xelal yi waaye nim ko boole woon ci boppam ubbil ko ay buntam yàgg koo def doom kon sëñ bi ɗum noon ceerno eh, ñu ngi leen di ñaan haɓe ñaagima ngeen yokku ñaan ci dëkk kala hoñ ɓe wonto ɗon leydi yon ɓeydu duwanaade leydi ndi yokku ñaan ci réew mi ɓeyɗon duwanaade leydi ndi ñaanal président de la république o wi ndu woni ɗon président de la république kanko mo ngannduɗaa hannde ko kanko allah fawi ɗo ñaanal gouvernement bi ndu woni ɗon gouvernement o kala ko ganduɗa woni anni e mabɓe faate ligganade leydi ndi yo allah timmitin ɗum o wi kono duwa o kadi mbaɗe hen sénégal naɓe foof ngay gis cofeel ci ñoom ñaar feddali koloré wayit woydi ko bàyyi xel di ko ñaanal nañu mu ne yàlla na leen yàlla jàppale mu ne boo demee nag ne président ñëw na mu ne boo ñëwee ñëw nga mu ne su su ñëwee ah, yow it ñëw nga mu ne am na mbég mbég na ci yow lool e ci ginnaaw bi nga sàmmee li nga waxoon e ak li ñu waxoon tamit mu ne nga wax nga des ci mu ne yombul de mu ne nga wax leen te ñëwagul mu ne mu dem lool dem ba sotti nga jëfee ko te soppi woo ci dara mu ne yombul de mu ne tax mu am Sama Sa, kilifa diine gi ñu ci Matam ñaanal premier ministre Ousmane Sonko ak délégation bi mu andal yépp ñu daldi fi bawo wutali fekk fa benen kilifa gu premier ministre Ousmane Sonko Setsi, si muy Aliou tiam momit am mbégte ci dalal premier ministre Ousmane Sonko. mu ne boo nekkee ki nga xam ne kuy muñ mu ne nga nekk ki xam ne ku dal mu ne nga nekk ku yaru mu ne nga nekk ki nga xam ne kuy yërëm mu ne yàlla nekk na ci yow mu ne mu ne loolu rek la la loolu rek la la wasira mu ne loolu rek la la wax mu ne mu ne na nga góorgóorlu ci lool mu ne nga wax ko ki président république mu ne loolu mu nekk seen kanam mu ne loolu na nekk seen kanam mu ne nit dafa nakari sàmm mu ne nekk nit dafa nakari sàmm mu ne nga nga topp nga sàmm béy mu ne moo gën a yomb nga sama nit ñi mu ne nit il faut nga muñ nga muñ mu ne mu ne nit yi yar dalu mu ne en même temps nga yaru mu ne nga yërëm nga mu ne loolu mu ne loolu la la wasila mu ne ci mu ne kontaan mu ne kontaan na mu ne kontaan na bu baax a baax. nemmeeku yi mu amal ci kër kilifa diine yi moo jeexal ngan gi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko mi ngi ko doon amal fii ci maatam ak ci Wuro Sogi ñu ñëwoon jiite bésub setal sunu réew dooree ko Wuro ci gaar bi dem marché Matam waaye it bawoo fa daal ca dex ba fii nag géej gi mooy fees bay tuuru. rawatina nag ci jamonoy nawet bi nga xam ne taw yi day takku premier ministre ñëw seet si loolu ñaax ñëpp ñu def lépp lu war ngir rek gën wallu askan wi waaye buñ ci noppee fileeg at yi ñu jëm ñu daal di xool ay gëstu yu leer ngir rek ndox mi nga xam ne day bari ba tuuru ba a nekkati ci gàllankoor waaye njëriñ gu mat sëkk ci askan wi ko yittewoo aliyu Aliou Thiam no Sama sax di waajal euh, gàmmu gi noonu la ñuy demee léegi nag dugg ci programme bi nga xam ni moom la RTS di indi saa ñuy dëgmal xew-xew diine bu màgg boobu tey ñu leen di gën a xamale ak El Hadji Mouhamadou si Sy mi ngi gane àdduna ci Tiwaawan Serigne Mouhamadou Mansour Sy doom la ci El Hadji Malick ak Soxna Ñang sëriñ Serigne Mouhamadou Mansour Sy nekkoon nag ku am xam-xam xarañ lool ci li ñuy wax science islamique jege woon lool waajuram bu góor bi di Seydi El Hadj Malick Sy Mouhamadul Mansour si teel a dugg ci wàllu gëstu lii nga xam ni moom moo di xam-xam soppoon loolu suñu borom bi daanaka royukaay la ci lépp ci gëm-gëm ci wàcce boppam waaye it ci am fulla ak fayda ci li muy def Sëriñ Mouhamadou Mansour si nekkoon boroom xam-xam bu mag macha allah. ni ko Melon bu gor Elage di Seydi elage Malick culture arabo musulmane kenn du ko laam ndax bind na bare ci littérature ak philosophie officier légion d'honneur Serigne Mohamedou Mansour Si. administration Touabi, bi jotoon ko sax nommé ko mu délégué officiel bu pèlerinage à la Mecque ci atum 1944 sëriñ Mouhamadou Mansour Si, mi ngi làqu ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars atum 1957 boobu ginnaaw gee jamono jooju it tiis ak naqar dugg ci njabootuk si mi ñàkk kenn ci gunu gën a fonk ci ay domam jamiyatu ansaruddin loolu xam ngeen association la bu Baye créé ci boori 1940 boobu lay association lañ leen di présenté ak Ibrahima Ndong jamiyatu ansaaru diin di organisation religieuse boo xamante ne Baye Niass mu ngi ko daal di sànc ci ndorteelu deuxième guerre mondiale muy organisation boo xamante ne daa am lu ko tax a jóg lépp rek jëm ci boole jullit rawatina taalibe yi. Mawlana Cheikh Ibrahim ñas moo ko euh, moo ko sos ci année 1940 yi. Euh, li mu ci jublu woon mooy dajale mbooloom pour ñu liggéeyal l'islam loolu dafay indi tabax ay jumtukaay yoo xam ne ay béréb ay jumtukaay yoo xam ne euh, pour jaamu yàlla la ay jumtukaay tamit yoo xam ne pour jàng la ci wàlli tasaare xam-xam euh, dafay jàppalante ak daara yi waaye dafay jàppalante tam ak institut islamique elage Abdoulaye Niass bi nekk Kaolack loolu mu ngi koy def depuis ay at euh, dafay jàppalante tamit ci ay ci yenn ci suñu groupement yi organiser xew-xew yi xew-xew yu jëm ci diine lu mel ni gàmmu lu mel ni ziyaara waaye itam lu mel ni ay conférence lu nu mel sax moo tax ci wàllu liggéey

Euh, jàppalante nañ pour def benn point de nano crédit boo xam ne mu nga Kaolack euh, di financer ay nit di dimbalante ak ay nit euh, loolu jur na ay résultat yu yu am solo moom itam. ci jamono joo xamante ne nag lu ñu duppee changement climatique dafa am doole lool jamiyatu ansaaru diin am nag ay activités yu am solo yoo xamante ne daf koy def ci wàll wi. ci yiñ def ñu. Euh, créé benn programme bio charbon. nga xam ne euh, pour euh, nit ñi am këriñ dootul soxla ñuy dagg bande dagg garab pour de ko di ko def këriñ dañu créé këriñ boo xam ne ñu ngi koy créé ci résidus agricole maanaam bu ñu bayee ba pare lu mel ni xolliti gerte wala yu demee noonu toujours ci wàllu environnement am ay action yu mel ni jëmbataat ay garab ci biir dëkk yi ak biti dëkk yi. ci wàllu perspective jamiyatu ansaaru diin taxaw temm ngir gën a lawal li nga xamante ni moo di liggéeyam ci Sénégal gépp ngir lu nu mel nag mën a antu daa am projet wala sax plan d'action bu am solo boo xamante ne fas yéene nañ ko daal di jëmmal. Medina Baye foofu nañu des ba léegi ñu nekk ci wàccaayu euh, gàmmu gi fan lañ ci tollu Leex Diop. ci Wajal édition 2024 gamo international bu Bay Baye ki yor kàddu Cheikh al Islam dajena ak taskatu Hibari, yi mu ñew ci lu yaatu ci lu waral gamu gi itam dundub jangale ak liggéeyi sallallahu alayhi wa sallam itam yon bi Baye ñass tek mom momé nga xamanteni mo tambali gamu gi yagna mu melni li day dajale ay talibé yu bari ñi nga xamanteni ñoo bokk ci fayda Tijaaniya. dañuy gàmm pour xam yonent bi ommat ñu ci jaamu yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ñu wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana am ngeen roykaay bu mat bu rafet ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moom nga war a roy dëgg-dëgg xam ko war na la jàng yonent bi sallallahu alayhi war nañu ci waxtu bu nekk war nañu ci jamono ju nekk waaye nag waxtu bu mbir waxtu wam xewee waxtu bu xewee daf koy daf koy gëna fatali hat Cheikh Mahi Cissé wax ne gën gi mindeef dañ ko wara top ci fànn yi yëpp gàmmu gi nak dina nek occasion bi nga xamanteni dinañu dox jamm ñaan ko ci xol yi waye itam digënté askan yi ku nek man nga ci am buntu pour lexal leela ñam ku nek man nga ci am buntu pour jàmmoo ko xam ak ko xamut ku nek man nga ci am buntu pour gan nañ taataan eh, ni nga xamee ne xol yi dañ ko war a ubbi pour mu taataan ay may ak ay tëbbu yu jugee ci yàlla tabaraka wa taala ndax jaam bi nu mu gën a beesalee jokkoom ak péeb yàlla tabaraka wa taala yàlla gën a dottil ay xéewali mayam taalibe yi mu ngi leen di woowandi ngir ñu gën a mën a xóotal seen xam-xam ci wàllum diine bés la boo xam ne mbindeef yëpp ñoo ko war a ndax xéewal la pour ñeyal mbindeef yëpp ñi gëm ak ñi gëmut ñi topp ak ñi topput ñi ko xam ak ñi ko xamut nit ñeeg mala yi sax mala yi sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñeexal leen ndax jàngale na ci njàngaleem bind yoo xam ne mala yi sax mën nañ cee xajoog nit ñi Cheikh Mahi Cissé ci turu xalif bi sant gërëm waaye itam sargal euh, bu baax kilifa diine yi nekk ci senegal mu sant itam nguur gi ci njàppandal ngir ñu amal gàmm bu mucc ayib mu mel ni nag fukki fan ak euh, juróom weeru settumbar bile ñu ngay xaar askan bi ngir rekk màggal juddug sangu sang yi waaye itam mbëggeel bu fës bi nga xamante ni kile di Baye ñas amal na ko ci sang bi ñu dem seeti nag suñu pèlerins yi fan la ñu toll ñoom ñi nga xam ne ñooy topp tànku Yeesu Krista egg nañu nag ci fa nga xam ne moom moo di Nazareth visite nañ ko ba pare dem nañu it ci béréb yu bare bare bare yoo xam ne foofe Yeesu Christ jaar na fa waaye ñaañ nañu ngir guerre bi diggante Israël ak Palestine dakk Blaise Minkilan ak Philomène Constance Diagne ñu ngi def ay groupe yi nga xamante ne moom lañu composé ci biir euh, pèlerinage bi di dem nemmeeku ay bërëb yu nga xamante ne yu am solo lañu ci jàngu katolik bés bu rëy bés bu yaatu bés boo xam ne jàng nañ si lu bëri ndax dañu topp tànku sunu borom Yeesu Krista topp ko dem nañu fi nga xam ne foofu la doon waaree. dem nañu fi nga xamné fofu la dajé ak Pierre ak famille Pierre dem nañu fi nga xamné fofu la sampé Pierre né ko yow yaay jité jangou bi pour ñu dem fu sori ce qu'on appelle en français la primauté de Pierre dem nañu fi nga xamné Marie Madeleine bi nga xamné Bakar bàkkaarkat la woon waaye mu top top sunu borom Jésus Christa te Yesu Christa may ko moom moo jëkk a gis sunu borom bi mu dekkali ko. à soixante-dix ans presque man doog a ñëw am occasion bi ñëw def pèlerinage suivre topp tànk yéesu ak talbeem ñëw bu lac Tibériade dugg lac Tibériade fi ko Yeesu waxee woon fi ko Yeesu defee woon ma essayé imiter apôtre ya toppoon Yeesu mënu ma wax lu nekk sama xol damaa bégg dama kontaan euh, di gërëm suñu borom di ñëpp ñoo xam ne ñoo yaakaar si yi am na ñu bëri bëggoon def lii xëy na li may ko donc ñun ay apôtre lañ ay envoyé lañ et nañ fexe ba à partir d'aujourd'hui suñ fi jógee ñu gën a changé suñu vie. yemu ci ci bés boobule tamit daal nañu dugg ci ab bateau amal fa seen mees mu nekk lu nga xamante ne lu raar la lu ñu faralul di gis te ñenn ñi mësuñu ko dund.

waaw xam naa ne gars yi kontaan nañ seen xol sedd nañ xol yi sedd nañ nañ ñaan yàlla rek ni xol yi seddee xol yi ne fii seddee noonu pèlerin de la pe yu ñu doon ñu jox leen paix bi nga xam ne moom moo ñu fi andi moom nañ fi andi pour ñaanal leen ko mu des fi ba ñeneen bi ñuy ñëw leneen nañ fi fekk dund lu gën ëpp lu ñun la ñu dund. benn sentiment contentement bu graw bu vraiment inexplicable laa ko mënee wax parce que j'aurais jamais imaginé que dinaa mën a def fay mees si benn bateau donc lii yëpp euh, suñu mbégte la satisfaction mbégte bu rëy di vivre suñu suñu christianisme suñu chrétienté. ci biir gaalu suñu borom. ujaaju jàmm yi daal nañu yeesal seen ngëm ci Yeesu Krista ànd nag ak yaakaar bu bari ñaan ngir jàmm dellu si si àdduna si rawatina ci dëkk yi nga xamante ne dañu nekk ci guerre ñu war fa rekk indi jàmm nga xamante ne moom mooy seen ràññeekaay ci jamono yi le abbé Pierre Sandi Diouf yëkkati na nag ay kaddu ca bato ba wax na ni nag pèlerins yi nañu gën a yokk seen gëm-gëm ni ko ñi nga xamee ni ñoo doon topp Yeesu saa doon defee ñu déglu abbé Pierre Sandi Diouf. am sañ-sañ ci géej gi dañoo nee nu am solo la am sañ-sañ ci ndox rawatina faw ñu góorgóorlu ca ñaan yàlla mun na koo may mun na ko te dina ko def. Yalla rek kadul jeex yalla rek mos ci yalla lañu a te woluko ma yok ci ñu doylu parce que am ñu ci te duñ ko delu, duñ ko doylu ni andi l'évangile ci suñu dëkk ci gal bu la doon duggu sawar ci accident voilà sa dëj supérieurs yi ñuy remplacer pour que l'évangile bi y a dugg mu war nañ leen gërëm ñaanal leen kaw ñun itam ñu mëna tok top saint n'est-ce pas ñu wax ci walu nañu nak fi nga Malawi fofu Malawi Sénégal dañu ak ñi nga xam ne ñoo di waa Burundi nag euh, nonu foofu ñi ngi fa yegg ci vol spécial Air Sénégal moom ngeen gis euh, noonu ñu war a football nag deuxième journée éliminatoire CAN Maroc 2025 bu ñu yeggee ci seen i hôtel boobu foofu ca Malawi gaynde Sénégal yi jot nañu yëngal seen yaram tuuti séance de décrassage pour waajal nak match bobu nga xamné digënté ak ñom ak Burundi lay doon ñu footballé fofu ci Mali Malawi ngeen gis Aliou Cissé di tagat euh, gaynde yi ak président fédération sénégalaise bu football di fàttali match bi nak euh, altiné lay am bu benn waxtu joté match la it bu ngeen mëna top fi ci télévision nationale ba léegi it li fa xew da ngeen ko mëna top ak El Malik Dieng El Hadj Dramé